asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Chérif Aïdi Cheikh Aïdara ñu may wax généralu Cheikh Al Khoutoub may doomu Cheikh Al Khoutoub waaye di taalibeem muy sama sëriñ di sama yaakaar àdduna ak alaxira Cheikh Al Khoutoub doomu Cheikh Al Walid doomu Cheikh Al Khoutoub doomu Cheikh Mouhamed Taqullah Soufi doomu Cheikh Mouhamed Fadul Mami maa ngi nekk Dakar euh, fii laa juddoo mais Mauritanie laa yoroo maa ngi jàngee. ci keppaaru waa kër Cheikh Hassan ci lenn Cheikh Sidi Boye doomu Cheikh Hassan ak Fatihul Hassan ñoo ma jàngal alxuraan ma nekkoon Nimja ma jóge fa ñëwaat Dakar nekk fii doon jàng ci ay école def naa ay école de communication nekk naa ci benn école bu ñu wax collège université islamique bu waa kër Abbas Sall ma jàng fa xam-xam macha allah jàng fa école jàng fa xam-xam bu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw événement bi euh, bi muy njëkk a commencé à la base sama anniversaire la woon ma toog comme ndaw bu ne rek ma toog ma xalaat ma ne damay def sama anniversaire mais bi ma xalaatee ba xalaat ma ne guddi goo xamante ni juddu nga ci ba chaque année mu ñëwaat pour man dagg ay gâteau feete ko def musique am na leneen lu ko gën ma ne damay def guddi yonent bi sallallahu alayhi wa màggal ko en tant que ndaw bu ko defee ma ànd ceeg samay moroomu ndaw ñun ñëpp ñu def ko biñ ko defee pour une première mu nekkoon mu tombeek le 7 août biñ ko defee mu réussir ma ne au lieu ma defee ko noonu léegi dama koy def muy sargal Cheikh Al Khoutoub ndax mooy sama waajur te comme moom moo tax ba alhamdulilahi rabbil alamin ma nekk ci kaw suuf tey baax na kon ma sargal ko waaye même bu dul loolu sax muy koo xamante ni jar naa sargal jar naa màggal loolu boo ko laajee taalibe yi xam nañ ko waaye ay mboqam di ay sëriñam di léppam waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp waa kër Cheikh Mouhamed Fadel yëpp xam nañu kan mooy moo tax ma ne damay jël benn bis spécialement tuddee ko sargal Cheikh Al ren muy nekk suñu troisième édition ñu ci màggal di ci tarbiyu ak di ci def lépp loo xamante ne war na ci guddi gu ñu mën a def ci guddi yonent bi di ko def ci guddi gi di sargal Cheikh Al looloo indi idée bi à la base anniversaire la woon mais dafa dem ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk sargal boo xam ne ñëpp ko yëg région yëpp dinañ ci ñëw kilifa bu ne mu ngi déplacé wu di ñëw di ko fekkee mu nekk le 14 août au lieu du 7 août léegi une semaine après la muy le 14 août loolu moo nekkoon idée de base bi anniversaire mais léegi dañ ko sargal mag ñëpp di ko béggee ñëpp di ci ñëw alhamdulilah boo gisee chaque année dañuy def thème bu bees Euh, ren ñu def ko ci thème bu am solo boo xamante ni pour man tem gënu ko ndax thème bi ren mooy le comportement du talibé thème bi ren maanaam bu ñu toogee ba toog ci biir bâche bi ñi nga xam ne ñoo yor waxtaan bi ñoom bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan ci ni talibé war a mun a mel ci kër ci kër sëriñam excusez mo li talibé war a mun a mel kër sëriñam bëri waaye taalibe de buñ ko waxee rek defe naa ne firndeel na lépp taalibe da ngay wàcce sa bopp taalibe da ngay bëgg sa bopp da ngay bëgg sa sëriñ taalibe sa sëriñ da lay jaral lu ne taalibe dafay fonk ay waajuram ba pare lu mu am jox ay waajuram bu desee mu indil sëñ bi ñun de waa kër Cheikh na Cheikh Saad waa kër loolu ñu jàngal suñu ay taalibe ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne comme annonce la rek duñ ci jaar duñ ko xóotal mais ku ñëw la 14 août incha allah di nga xam nu taalibe war a mel lu taalibe mun a def ba am li mu war a am mais taalibe en gros na fexe ba am ngërëmal sëriñam le 14 août incha allahu rabbi ñiy waxtaan dinañ ko gën a xóotal bu ko defee ñëpp mun na barkeelu ci euh, définition bu taalibe nu mu war a mel mais ren comportement bi euh, thème bi ren comportement du taalibe la ñu ci woo ñëpp incha allahu rabbi dinañu dégg incha allah. tabarakallah euh, programme bi incha allahu rabbi nii lañ ko bëgg a tëralee. 9 heures incha allah ñu def lecture du Saint Coran ndax lépp loo gis rek ci àdduna bu dee bëgg nga mu am barke bu dee bëgg nga yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko danga nga koy tàmbalee li nga xamante ne mooy alquran al karim ndax chana Cheikh Saad Bul Maram dafa ni daharu dahariri kitaabuhu jadid la yaftasha tahrifuhu wala yuhi àdduna lu mu yàgg-yàgg alquran soxlawul mise à li ci yàlla waxoon bu yàgg loolu lay continuer di ànd ak jamono ñu muy jàmm ak yiw bu dem ci Cheikh Al Khoutoub sunu sang sunu yaakaar waaye ñu def ko pour la paix et la sécurité fii ci Sénégal ak Mauritanie ndax ni ma koy waxee toujours ñun Mauritanie la ñu bàyyee ko ñëw fii Sénégal ndax fii la ñu Cheikhna Cheikh Saad def muy sunu mission waaye bu dee fii la ñu nekk it jarul ñuy fàtte fële moo tax ñu ne muy paix et sécurité pour Sénégal ak Mauritanie ñu toppal ci 14h30 incha allah ñu ànd ñun ñëpp. Euh, julli ba pare bu ñu jullee ñu daal di xéewlu incha allahu rabbi 17h30 ñu def ren innovation bu doy waar ndax bi mu ci waxtaan ak ñi mu ciy waxtaanal ba pare dama ne damay def sikkar Baay Faal li tax ma koy def mooy dama koy def pour wane complicité bi nga xamante ni mu ngi am ci waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu waa kër Cheikh Mouhamed Vadul Mamin mu ngi am ci diggante ñooñu ak képp koo xamante ni rek soppe yonent bi rawatina waa kër Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ren ñu def Sikar Baye Fall di ci woo ñëpp waa kër Serif Tilala faal waa kër sëñ moo Kara ñoo ñu nga xam ne sama ay waa kër bopp la ñu bëggal ma te ma seen bopp te moo tax ñu woo leen ci ak képp koo xamante ne rek taal bi Cheikh Ahmadou Bamba la ñu ngi lay woo ci Sikar Baye Fall bi incha allah fii lay amee ci buntu kër gi bu pare incha allah ñu def discours waxtaan yaatal incha allah rabbi 20 ñu fas yéene xéewlu bu ñu xewloo ba noppi incha allahu rabbi ñu def mise en place maanaam ñi nekk ci organisation bi dinañ dem ci bâche bi jéem ko defaraat comme ça gan bu ñu ñëwee am fu ñu mun a nekk incha allahu rabbi à vingt heures pile fas yéene nañu ñi nga xamante ne mooy tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa te fas yéene fii ñëw ñoom ñëpp ñu mun a dugg ci bâche bi commencé tàgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam 22 allahu rabbi bu ci yàlla àndee ma ànd man ak waa kër Cheikh Mouhamed Fadel yëpp bu ma waxee waa kër Cheikh Mouhamed Fadel tudd naa ñëpp képp koo xamante ni deretu yonent bi ga maa ngi lay woo ci guddi gi bugguma jaar ci ay tur ndax bu mu limee dina juum waaye li nekk ci xool bi mënul génn ci gémmiñ gi waaye képp koo xamante ni seq naa ak yow jàmm ak salaam te yaakaar naa ne seq naa kook ak yow maa ngi lay woo ci guddi gi ñu ànd ñun ñëpp sargal Cheikh al waaye màggal yonent bi sallallahu alayhi wa kon 22h30 ànd ak ñooñu. ñoom ñëpp waa kër Cheikh Mahfou waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou waa kër Cheikh Tourade waa kër Cheikh Mouhamed Fadel yëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëpp ñu ànd à 22h30 ñu génn dugg ci bâche bi bu ko defee taalibe yi gis ñu ñu mun a toog mun leen a ñaanal képp ku fa ñëw sa aajo faju ñu ngi ci woo ñëpp fàttewuñu kenn rawatina nag waa zone A mi nga xamante ni fii lañ koy defee ñu ngi leen di ñaan ñu yaatal seen kër yi ubbil ñu ndax seen doom seen xarit seen sëriñ mooy def événement bi incha allahu rabbi di leen ñaanal yéen ñépp ku ci nekk yàlla guddal sa fan wéral sa cër di leen xaar la 14 août incha allah fii ci zone A yal na yàlla rafetal ànd bi yal na yàlla guddal fan yi wéral cër yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam incha allahu rabbi le 14 août 2018 fii ci zone A la général Cheikh al Xutub ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi leen di woo ci guddi gi bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd sargal Cheikh al Xutub uldul walid uldu xutub uldu Cheikh Mouhamed taqullah suufi uldu Cheikh Mouhamed Fadl képp koo xamante ne rek bi Chérif Xutub nga te mu leer na ne guddi gii war nga cee mu a gis sa bopp ñoo ngi lay woo nga ñëw nga participer rawatina ñi nga xamante ni ñooy jeunesse bi nga xamante ni ñoo topp ci ginnaaw Cheikh Al Xutub man mii ma bokk ci ñoom muy waa taqu liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad ak bépp soppe boo xamante ni bokk nga ci taqu tarbiya Cheikh na Cheikh Saad ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si te xam ne seen guddi la ak taalibe yu mag yi nga xamante ni ñoo ñu wan yoon bi ba tey jii ñu mun ñu teg suñu tànk ñoo ñu tamit ñu ngi leen di woo ak képp koo xamante ne rek yëg nga sa bopp ci guddi gi ñu ngi lay woo ci guddi sargal Cheikh Al Xutub doomu Alwali doomu Xutub doomu Cheikh Mouhamed Taqullah Suufi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh